Euh, professeur oui euh, huit chefs d'inculpation qui ci lu vous savez, bu weesoo li nga xam ne moom la ñu doon wax sànq muy muy contumax bi euh, bi ñu ko arrêté ba conférence de presse huit chefs d'inculpation est-ce que prêtez-vous le flanc vous ci un discours qui mu jàpp ne moom ko def ci peut-être yenn yi défiance yi mu wax ne def avons dit aujourd'hui ba ci sax li nga xam parti bi ñu dissoudre alors Ousmane Sonko a toujours tenu un discours constitutionnel et constitutionnaliste dama ko yàgg wax nee naa leen il faut ñuy dellu ci ay discours am beneen bi ci topp problème mu discours yi bu ñu nekkoon ci dëkk bu am yoon yow Fatou li ñuy wax ci émission bi nii rek nit mën naa génn dagg leneen loo xamante ni génn ko procureur bi moom moo dem compiler ay wax benn nit boo xam ne dafa yor compte boo xam ne c'est un compte fictif di sax glorifié wu ni man de maa ngi wax ni wéy procureur man sax samay vidéo la jël beneen bi ci topp mooy maître dafa ne Juan Branco parce que fofu lay ñëk ñëw ba paré Juan Branco avocat la mais Juan Branco dañ ko japp ak fi ak benen confrère am maître Babacar Ndiaye biñu japp jàpp maître Babacar Ndiaye lu ko libéré avocat yi ñu pression ba nara donc. Euh, boycotté boycotté. xam nga la matière pénale la justice c'est une tâche de souveraineté. mais je ne suis pas d'accord l'image du Sénégal est sortie abîmée dans cette affaire Juan Branco moom ci boppam wax na li ko libéré mais benen bu ci top. ma jox la exemple Tchad am nañu problème ak ay ressortissants français dans l'affaire Arc de Zoé qui problème trafic de d'enfants ba ñu ñëwee ba leen jappé dañ leen juger fofu foofu Sarkozy moo dem jëli leen mais bi leen di jëli accord d'entraide judiciaire ci la passé pour jëli leen il faut que ñu wax mbir mi c'est-à-dire que en réalité ay sénégalais ñi ngi fi li ñuy topé wan Branco lu ci touti buñ ko waxé ñi ngi ci kasso bi ñu def leen parce qu'ils sont membres de PASTEF parce qu'ils s'opposent lien de constitution est dans l'article 58 et dans le préambule de la constitution loolu moo am Sénégal xam nga justice maître il est wax France etc. mais maître nous amuñu un juge de la détention et de la parquet bi mooy def sommes tout puissant dans notre pays Si sommes boo États-Unis maître man d'accord Nous sommes ñuy wax man dama justice nous suñu justice la comme on dit weenu yaay lax na wala doom yi ci la ñu mais par contre critiquer la justice fait partie du débat d'intérêt général mais nous, nous, nous, gis xam nga am na loo Maintenant, maître mi wax ni d'accord droit science sociale mais Georges Vedel disait aussi science sociale mais expérimentale dafa am solo lii xew ñu gis di apprécié, aussi par la perception et par les décisions de justice qui sortent gis nañ ni dans l'affaire Juan Branco mais Juan Branco mais là, la def dafa dugg territoires territoire Sénégal di procureur l'autorité mais wax mais ñu course poursuite Mauritanie Sénégal mais defu faut 48 heures mu avion dem confrère Sénégal bi nga complicité il n'est même pas l'auteur principal lañ a il a fallu que avocat yi dem grève même euh, ni justice bi donc dañu koy paralyser mais il y a problème en ce moment deux poids deux mesures bobu ñuy wax rupture d'égalité bon té pourtant bon mais constitution bu Sénégal lan la la wax daf né la citoyen sénégalais dañ dañu leen protéger fi ci Sénégal justice moy mo leen justice yow mo lay jëk protéger ñu né la avocat bi yow xam nañ bu baax mais lan mo tax le bâtonnier de l'ordre des avocats bind ministre de la justice tontu quoi ñun xam nga dañuy jàngalé quoi ñun xam nga la avis xam nañu avis obligatoire xam nañu avis facultatif xam nañu avis conforme xam nañu avis non conforme li batonnier bi wax loolooy dëgg bala ngay topp avocat wala dara da nga koy yëgal batonnier bi mu jox la avocat mu jox la avis mais avis boobu ça ne lit pas n'est-ce pas l'autorité judiciaire procureur général su ko neexee mu ne d'accord dégg naa li nga wax mais ma topp parce que j'ai l'opportunité des poursuites mais defu ko man li ma bëgg a wax mooy lenn beneen bi ci topp maître gis naa ko de Ousmane Sonko dafa défier la justice non man pas d'accord ak ça. fa mais désobéissance civile. non def bayil wax désobéissance civile. lan la def désobéissance civique histoire là aussi. désobéissance civique. oui même bàyyil ma ñëw rek parce que damay nek di wax. désobéissance civique ak désobéissance civile. Mhm. résistance à l'oppression ak insurrection violence ak révolte ñi yor nguur gi nee ay acte de viol Ousmane Sonko bi ko condamné le le le premier juin fan la ko fekk këram dafa tere ndaw ñi génn est-ce que dafa tere ndaw ñi génn bi ko mars 2021 bi dëkk bi di tak fan la ko fek fekul ñu yobu ko section de recherche mu japp jamba bi mi jóge kungel di ñew le 27 mai 2023 le procureur de Kolda il dit aujourd'hui à 16 heures Monsieur Ousmane Sonko qui a initié une caravane de la liberté arrivé à hauteur de Kolda procureur bi néna ay nit ñoo dugg ci ay pick-up pick-up yooyu nee na amul sax matricule ñoo doon jéem a saboté caravane Ousmane Sonko ba am ku ci dee ku tudd Aliou Bodian âgé de 37 ans ana enquête bi fu mu toll ana ñi doon saboté caravane Ousmane Sonko ana ñi duggoon ci pick-up yooyu les mêmes pick-up la ñu gis fii à Dakar Fatou Ousmane Sonko est-ce que jour prochain lañ ko jàpp mais nit mën ngaa def un commentaire sur une procédure judiciaire buy ñëw est-ce que Ousmane Sonko ñi ko jàppoon buñ ko bàyyi woon le jour du procès doonul woon dem toog kañ la mais attends Ousmane ko toog na fii wax ne man du dem ay nit wax ak moom mu dem fan lañ ko jàppee dañ koo jàppee fan. kungal xawma ma ko këram barricade ko ba bari eh, toog ko yëkkati kàddu non bàyyi ma ñëw rek déloger Macky Sall non non non Macky Sall waxul lu fi dañuy déloger damay bu bu Ablaye Wade kiiwul dañ koy déloger en 2011 oui waaw donc ça c'est un discours politique c'est-à-dire que man limam ma gi wax moy pourquoi ñuy jël discours bobu diko momalé rek Ousmane Sonko alors que Macky Sall l'a dit te le président Ablaye Wade top ko parquet Sénégal topp ñuko ko lu fi bees non je n'ai pas dit ça non non non maître mais je n'ai pas dit ça Excusez-moi. dans le maire Cheikh Gueye il est là il est homme politique je ne suis pas homme politique mais il sait que dans le discours politique ce sont les hommes politiques mais l'intention ne vaut pas action Ousmane Sonko combien de jours avant son procès ñu a été ko barricadé ce illégal xamuñu won ndax day dem motax su maître taxawé wax né Ousmane Sonko dafa défier la justice man d'accorduma et puis Ousmane Sonko lan la wax musul wax lolu dafa né man parce que man aussi xamna ci dara lolu gis nga Ousmane Sonko je vais te faire une confidence lu bëri ci limi dem justice day yeey ñi nit ñi parce que dana nit ñi li lay démé et pourtant ay nit dañuy wax ak mom ni ko non mais bu accepté à la fin mais fi la dem en matière correctionnelle procès ak Mame Mbaye ñepp ñépp xam nañu su ko neexoon mu tok mu dem ba fii ci corniche bi ñu téye ko di ko xëcc mun leen léegi damay ñibbi sama kër ñu forcé ko ba yóbbu ko fa ba li ko ci dal dal ko mu dem hôpital te amoon na droit bañ a dem loolu mooy justice Ousmane Sonko dem fii mois de mars di wuy ji dugg ci otoom ñu fekk ko ci oto ba di ko kittim ne ko dañ koy yóbbu xam nga bu ñu taxawee rek naan nit dafay défier justice dafay défier justice mais attention tout sénégalais am na droit bu fekkee ne moom xam nga lan la dafa man loolu laay dul comprendre nit ñi dañuy ñëw ni waa d'accord mais la justice elle est là mais nit ñi bu ñu d'accordul sur le fonctionnement de la justice dañ koy wax Ousmane Sonko dafa ne suñu ma tegalee ay garantie te loolu tout citoyen am na droit wax ko xamal tax mu am droit wax ko parce que citoyen bu ne yow da nga war a am la sûreté et la sécurité juridique maanaam tey boo ñëwee ñu war la juger su la neexee nga ni man kat mais le droit de révocation amul devant la justice et il y a un principe général du droit boo xam toute personne a le droit de ne pas participer à sa condamnation si on neexee tok sax baña a dem max contumax bu ñu la jëlsee wala à un moment donné nga ni man accepter na dem mais comme que rek nee nañu Ousmane Sonko dañu ko juger en état de contumace mhm. que dafa défier la justice dañuy interpréter l'article 307 euh, faram fàcce ko xar ko def ko bi ci top nak monsieur le maire nit ñi dañuy wax ci juriste di wax ci droit ñun ñukoy jàngalé on a l'amour de ce métier le droit, c'est l'art du bon et du juste. Et même quand on tourne la tête vers Dieu, c'est pour y chercher du droit. Nous, sommes dañu yàpp parfois droit bi avons mu nekkoon nous ngi fa bataille. ba nous yoon mi ngi fi nous sommes des ñi ci sommes Sénégal combien de fois nous avons dem cours de justice de la nous ñu condamné l'État du Sénégal ni exécuter? mais nous avons mi rattrapé l'affaire Khalim affaire à Sall Karim parrainage l'État du Sénégal nous ngi rattrapé Boussouba certainement Ousmane Sonko luñ qui ko fi doon topé viol et menace de mort ñu dem ba ci fin bi ñu né corruption de la jeunesse donc lolu yëpp dalay wat ni yoon fi mu nekkoon mi ngi fi batay dañ cee teguwul droit fi mu nekkoon mi ngi fi batay d'accord dañ cee teguwul benen bi ci top dak juriste nak maintenant fofu lay bëgg ñëw. oui vous terminez oui. man limay may droit constitutionnel il y a eu de brillants constitutionnalistes. Carl Schmitt fut l'un des meilleurs constitutionnalistes de l'histoire mu dem Adolf Hitler. Il a été interdit d'enseignement à la suite du de la chute du régime du Troisième Reich. Joseph Barthélemy l'un des meilleurs constitutionnalistes de Fadem dans la compromission ànd avec maréchal Pétain il n'est même plus cité dans la doctrine mais il a été interdit gëm ñun kenn mënuñu ko def loo kenn ko wax parce que aussi dañuy la dignité et le socle de la personnalité droit du ay donc dama a rek interdit euh, ci loolu science bo xamni c'est une science noble nit ñi nak maintenant mën nañu ñëw comme disait Jean Clévis la mention de la race humaine c'est la mention alors c'est très bien bëgg naa ñëw ci yow monsieur le maire mais je termine juste avec euh, Tu justice pour le ci politique